Pape tey balaa ngay balaa ngay dugg ah Pape. Mhm. Euh, euh, soxna si ci biir kër gi di liggéey ak Bébé Baas léegi dafa dafa dafa jooyloo ñëpp ah. Mhm. ci témoignage bu mu def ci Bébé Baas tey anniversaire ru Baas la Pape. kii mhm. Bébé Baas. waaw mais xam nga tey buur soo may laaj ci bébé da nga may andil problème li tax nga may andil problème mooy euh, man bëgguma sax ñuy wax ci man moom it wax naa ci moom ba àdduna sépp xam nañ kuy moom donc bébé xarit la mbokk la jabar la dëgg yàlla nawle la donc vraiment euh, tey nag di bésu anniversaire am ñu koy souhaiter happy birthday to you yàlla sàmm ko sàmm njabootam donc vraiment ak bépp njaboot bu nekk si réew mi Sénégal yàlla def fi jàmm def fi sutura def fi xéewal mais tey pour ma wax ci moom dina metti ci man trop

nee na ma yàlla xam ne ni que bu ma mënoon a way woow bu man maa ko mën a suppar ñi tey man maa ko way pap pap man maa ko war a gërëm pap man maa ko war a ñaanal ndax fi mu ma féetee kenn fete ma waaw mais buur àdduna moom euh, lépp teraanga la donc euh, moom mbaax gu mu wax ci man rek moom it mbaax mel noonu mu ngi ci moom donc euh, mooy borom first lady c'est la première dame. Pape ne regrette pas d'avoir connu ah non jamais regretté o ma au contraire plaisir la ci ma